Aïdara mooy Chara Fall maa ngi leen sant yéen ñëpp ñu nekk salle presse yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di sant suñu kilifa yi fi toog su ma tuddee Père Diawar wax naa ñëpp ah ak Massiré ñoo ngi leen di waaw am na si ñoo xam ne du ma leen sant moom ndax mbir mi seen mbir la ci mel na ñoom saa kees ñoom Alioune Seye ak xale yi nekk yëpp du ma ñi dëkk Géejawaay ma leen sant waaw euh, euh, bébé Saloum ngi lay gërëm bu baax ak yéen mbëri yi fi ne ñi fi nekkul te bëggoon a ñëw te ñëwuñu te woo vraiment ñoo sant ñëpp am na ñu ñu bëggoon a ñëw te woo na ma tardement gërëm ñëpp di sant ku ñëw ku ñëwul yëpp euh, di gërëm tamit wax dëgg yàlla ki ñu waaw muy Bira Sène ñoo koy gërëm ci loolu moo ñu jox saal bi ñoo koy gërëm di gërëm ménagères yi fi nekk Euh, entraîneurs yi euh, Bambey ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax benn affaire boo xam ne tey jii moo fi dajale ñoom ñëpp. silence s'il muy li ñu fi dajale muy Kaawu Lac de Guiers sunu rak sunu xarit sunu frère moo ñu fi dajale Kaaw moo ñu fi dajale ndax vraiment li daal daal de guerre mën naa daal ku ne cat la nag te cat du wees ndax su daloon keneen ku dul Lac de ni ñu taxawee noonu lañ koy taxawee ni mu taxawee noonu lañ koy taxawee kon nag tey jii fii yaakaaroon naa ne suñu wootee du ne du ne kenn yëpp ndax la dëggeer suñu rakk la suñu xarit la bokk ci làmb am fu mu yóbbu làmb am ñu ko bëgg kon nag su ko natt dalee lii rek lañ mën a taxaw ñaan njekk ak trang gis na ne ak lu làmb nañ taxawee euh, euh, ñi ci jàpp te bëgguñu tudd seen tur jaar la ko ci Père Bekaay Mbaye ñoo ngi koy gërëm di ko sant Père Bekaay taxawaay bi rafet na ak doomu Moodu Mbaye ak Makan promoteur ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax a baax ndax euh, comme li sa wax léegi rek bi ñu taxawee ci tribunal bi bi bi bi moom moo njëkk a def effort moom moo njëkk a génne xaalisam te ko ci ñoo ngi woo promoteur yépp nag ku ko mën a jàppale ci benn affaire ngay muy nga tëggal ko làmb tey su doon suñu sago lii ñuy def sa ko def ndax tey mën nañoo wax ne mën tëggal làmb ñu génne kase avance su dee ñaari avance ba ñu ñu ba ñetti avance ba gënalu ñu jàppale ko ci mu génn fa mu nekk loolu moo ñu tax a jóg ku ci mën ta tëggal làmb tamit loo man ci jàppale ko xeebuñu dërëm xeebuñu ñaar dërëm xeebuñu da bañ dara ñoo koy commencé ci Abdou Assane Ndiaye mi ngi ci am na ma bàyyi ñoo ngi ci kilifa géej way Kor Ndiaye euh, famille Pape Bara Gueye itam ñoo ngi leen di gërëm vraiment gis nañ taxawaay ak ñoom Masata ñoom ñëpp di woo Mansour Ba tamit di ko woo promoteur la Ibrahima Diop am na woo na ma am na lu mu te nee naa ko man fekkee tey dafa am kenn koo xam da nga jóg pour jàppal Lac de Guiers ak mu mënta toll mi ngi fi rakkam mi ngi fi Mame Mor numéro Mame Mor dañuy joxe léegi pour kenn ku ko nga woo papaam loolu rek moo ñu tax a jóg pour ñu jàppale suñu rakk suñu xarit suñu feneen ñëpp nag ñooy woo ñëpp ku ko mën a jàppale ndax tey am na benn somb bu am père Bécaye am na lu mu indi indi na euh, vingt cinq millions amoon nañu euh, dix millions ak un million cinq cent mu war a nekk ñaata loolu soo ko calculé ah ci cinquante neuf millions kon ñaataa ci des cinquante neuf millions soo ci génnee vingt cinq ak onze millions cinq cent loolu ñaata la ñaata moo ciy des kon. ok 24 millions. 23 500 mooy 23 500. 23 millions 500 kon moo ñu dese ñoo ngi ñaata jënd ñeenti avocat am na ñeenti avocat. silence am na ñeenti 77 numéro Mamor 98 53 mooy numéro Arbarka Kayra tam suñu feral la suñu mbay mbay mbay mbay warax suñu doom la dëkk Géejawaay nekk mbër tamit mbay warax ñoo koy ñaanal fa mu nekk yàlla gën ñi nekk si kaso bi yàlla kaso yi ñun daal loolu la ñaan dimbal la ñaan jërëjëf ñu jàppale suñu rakk suñu xarit muy lan ak dimbale ci promoteur euh, ñu xaalis ñu tëggal ko làmb Abdoulaye Diop xaas tam danga koy gërëm di sant taxawaay bi boobu ba léegi tam ak ñi ci jàpp yëpp ak ci ah, lu mu tudd euh, ki nekk lu euh, mu tudd ah, ñoom ñëpp vraiment kenn leen ko gannaaw ñëpp ñoo ci taxaw ak ñoom Bekkaay ñoom Modou Mbaye Fatma Dia ñi ci jàpp ñëpp ak ñi nga xam ni bëgguñu ko tudd seen tur ndax mënoo lim ñëpp ah ndax boobu ku ne ku doxul ku waxul ci kaw yaa wax suuf di ko jàppale. kon nag yooyu gërëm ñëpp di ñaan promoteur daal yi nekk ci lamb ji yëpp ku ko mën a jàppale nga tëggal ko lamb ñu motal lii te joxe avance ñun d'accord nañu bàyyi ñu benn adversaire ku ko mën a tëggal lamb nag loolu ñu mën a jàppalee nga dimbale ñu ci nga dimbale ci ngir yàlla ko suulee jërëjëf ñoo ngi ñaan autorité yëpp bàyyi wunu kenn ngeen dimbale ngir yàlla nag loolu doon mooy wax ci doole jërëjëf voilà ñoo ngi gërëm ñëpp am nañu ma wootan ñoo ñëw ci ñu na léegi mu tudd ama neex ama neex gis nañ ko fi léegi tam ñoo koy gërëm mbëri fi teew yëpp ñoo ngi leen gërëm di leen sant. ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñu gërëm nañ leen sant leen la ku ko yëg nag te ñëwoo la yaa xam sa affaire la ndax natt du wees ah. natt du wees natt du wees ñëpp lay dal. tàccu leen ko baax tàccu leen ko jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tàccu leen Lirou Diane léegi numéro Mame Mor mooy 77 659. 98. aussi aussi la am na lu mu joxe léegi jox na ko toos. waaw ñoo koy gërëm di ko sant. jërëjëf bu am lu muy joxe daal. a vraiment moo rek ni mësi la ñoo ngi lay di la sant jërëjëf yàgg nga koo def te du ko yëg.